thank you naye lay naye lay naye cimbulay yaram naye cimbulay lay naye tund wi am nañu mu neex ak ñi mu neexul ci sama toogin ci tund wi yow doomu garmi nga te Latir doomu baadoola la sa kàddu yi nga génnee delloo ko fu mu nafaal sol na mbubum njóobeen jomm na ko dara la sol teg soof ci yëf yi naqari ma <laughs> ba fa kanamuk yàlla mu jigéen ñin ci xarfalaale cey benn lël nag mosu fee jaar boo xam ne kenn ràcc na ci mbollem julli lël ba dañoo deewoon ba jeex magum dekk nam am bul nangu ben julli dess loolu recc bu mag lay doon su boba ndax umpul woone yow tund wi yep yep yep yep ken ñi mu wut jamar lo yow yaay magum dekk bi am doole dong mo tax ñu tudde ko magum dekk dama jog jëm si lalu jigéen bi ma demee bay bëgg a yegg ab xaj dogale ma di ma dàq maa ngi daw wuti wat lalu góor ñi waaye lu ma gën di daw lël bi di ma gën di sori. ah ndijaay sa gént gi tiit naa ci lool ndijaay loo ma sa gént ñaare gis naa ko. ay waay sama doom di latir ñeewantal naa ko lool. lan moo waral toogaayu magum dëkk lan moo waral magum dëkk li may for ci wewu nag. dafa mel ni démbam rafetul. joor man de damaa bëggoon a daw ndax fa nii sama xel dafa nekk sama yaaja rek. waay wis sama ndey yaay waay waay waay. Nour Nour Nour Nour. Nour. Eh, Nour lan la Latir. Eh. Nour la xew. Latir. waaw maam Latir. maa ngi nii eh. magum dëkk. xanaa xamoo ni ku bëgg foo joxoon jant fenk far na sa baaraam di jëm penku Sangoguma TV Sangoguma TV Sangoguma TV la scène qui vous ressemble et vous lii de ku ma ko waxoon fii ak teguma ci sama bët duma ko gëm mukk mukk mukk mukk mukk kon naaraa mooy jaan ajo daagul mu topp sa ginnaaw waa lii lan lii lii lii lii lakk la xam mais comme saa yow ku la daam ah yalla bo mucc ci man ma nit yàlla boo mucc ci yow nari ndax yek nga ne nara feñ na waw nara de don na jaan ci kanamu mara parce que nak dañu ni won ma sa ndawu deuk ma la sa lagu rew tay rew bu la gën ndaw moo la ëpp avenir. kon tay ñun suñu gox bi mën nañu ni bokku na ci gox yi ëpp avenir. looy wax ni Mara bu ma. non. eh Mara calme toi yow eh Mara eh. non man war mako gis. Eh, eh eh Mara man ngay waxal man la ko maa ngi ni yow kat kat nga si kaw tali. ku la gëna gaaw yaa gëna neex. <laughs> Mara woo ko téléphone jotuma instant ba sonu jotumako te moom fu mu saa gisee sama appel dafa may woo ma jaaxle te man xam ne su ma jaaxle ci yow rek laay ñëw. nga mhm. bëgg nga xoolal ma ko ba xam mi ngi ci jàmm. Mara dama koy woo rek du ma ko jot te loolu xamee wu moo ko bu ma ko daan woo mu jàpp daf ma daan envoyé message ne ma damaa jàpp wala dara mais du dara xaw lan moo ko dal. mais est-ce que nekkul ne moom dafa jàpp wala dara moo tax nga koy woo jotoo ko. noonu non loolu di jukkoom. motax tax daal man mané won xaram xaaral dem këram xol ci lan la nek ndax wooru baax mu ci si waye waaye naar laaj na ay taxaw lima bëgg moy nga dem fa taxawu ko bu baaxa baax ndax yow kat ya ko upp pouvoir. Sangoguma TV Sangoguma TV Sangoguma TV. la scène qui vous ressemble et vous rassemble.